ñaan gi lu mu sori sori rek dañuy ñaan yàlla tegal na ko ci loxol yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jaar ci moom jëm ci ñi nga xam ni moom la ñaanal te mooy Serigne Mor Dia ak bokki jullit yam fa nekkal ñëpp alxuraan ñeenti bénéfice woo nañ ci ñi ko doon jàng ak ñi toogoon déglu te jànguñu ak ñi romb barab bi ormal barab bi ak ñi yëg ni ñi nga fi def lu baax ñu yëkkati seen ñaq def ko ci ñooñu ñëpp alxuraan da leen a fay te alxuraan moomu nag ñu bëgg a def ñaan gi dafa am ay gaayam te ñàkk caa bokk wóorul ñàkk bokk ci gaayi alxuraan wóorul ndax ëllëg bu ñépp tiitee jàq alxuraan moomu day jóg di ràmm ay gaayam waaye du alxuraan doo ngay yem ci di ràmm waaye saar sax dañuy jóg di ràmm seeni gaay waaye du ñu yem ca saare ya di ràmm seeni gaay waaye aaya yi dañuy jóg di ràmm seeni gaay nekk ci jataayu alxuraan nag fexe ba génne sa bopp ci ñetti gaayooyu wóorul nga xam ne booy alxuraan di ràmm doo ca bokk ngir na nga tooge ca jataay ba sellul walla bu saaree dee ràmm doo ci bokk ndax bokkoo ca ña ko doon màggal wala su aayee dee ràmm doo ci bokk ñett اللهم ربنا تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان في تلاوته من سهو أو نسيان أو تحريف أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان aw tawilin ala geyri ma anzaltahu aw raybin aw shakkin aw taajilin inda tilawatih aw kasalin aw suraatin aw zeyqi lisan aw wuqufin bi geyri waqfin aw idgaamin bi geyri mudgam aw idhaarin bi geyri bayaan faktubuhu minna ala tamaami walkamali walmuhadabi min kulli alalxaan warzuqna fadla man qara'ahu muaddiyan xaqahu maa al a'daa'i walqalbi wallisaan wahab lana bihi alxayra walsacaadata walbishaarata walamaan ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان بالحسن بسري هب لي ورع وإن سلاخ من هواي والبدع وبأبي هريرة وببلال وبصهيب رب جلي بنوال وطاعة تقبل وشن من داء سرا وجهرا بأبي الدرداء بحرمة المقدار ثم خالد وبالزبير أولي مقاصدين وبأمير المؤمنين عمر قنيا مكن وشقا وغررا بحق قائد المجاهدين علي الذي أعان الدين بحق سعد وبحق عروة زدني تمسكا بيتقى عروة بحمة القاسم ثم خارج زدني يقف المتبى مناهجا فلتقبلا يا ربنا القرآن مغفرة ورحمة أمانا لجدنا وغوثنا معمر وكل ما عليه رب كفره زده الرضا مع المنى فلتستر نصرا عزيزا عندكم فلتنصره wa xaqiqan rajaahu fal tukrimi amaalahu ladaykum la tuhrimi wa tayiban fuaadahu wa aalihi wa kun lahu fi abadin ma ahlihi ihfad ayaalahu banina walbanaat wa ummahum takarruman bilxasanaat fa kullu man bihi taallaqa fala yaxaf wala yaxzan maan rabbal ula wa baarikan baldatahu maa al ayaal fi dilli nicmatin maan bila zawal afshil huda maa tuqaa fi kullihim wa axrijil laga rabbi min jaybihim wa agnihim amman siwaaka min ibaad warzuqhumu yaa man taala an nafaat hab lahum al imaana wal islaama jud lahum al ixsaana wa stislaama atfi lahum naara shiqaaqi wa nifaaq hab lahum najaata munji wal wifaaq bi jaahi cheikhihi al xalili ibrafal wa jaahi abdika al xadimi dil xisaal subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun ala al mursalina walhamdulillahi rabbil alamin amin na sëriñ bi mottali amin yal na yàlla nangu ñaan gi yal na yàlla may na ñu fekkee ko ndege déwén yal na yàlla gën a dolli xéwal yi ñaan sunu borom ñaan gi yal na fekki sëriñ Morja ca àjjanay Firdawsi ak njabootam gu tedd gam fa bokkal nekk sëriñ bi ci mbaaxam su ko neexoon mu jëlal bis bi boppam su ko neexoon it mu xool keneen ku mu neex mu joxoñ ko waaye mu yëg ni sëriñ Moussa la mu nekkoon yar na ci njabootam te it yéesuñu ko ci dara du lislaam ju mat du taalibe du dara joo xam ne dañ naan la nekkoon ci sëñ Moussa nekkul ci njabootam mu yëkkati liggéey bi joxaat ko Serigne Cheikh Serigne Cheikh jaar fa baay ba daan jaar te mooy xam ni yëfi ñëpp la yor mu boole ci ñëpp moo tax sëriñ bi bi nga ko joxee ndigal li ba muy def appel dani ñi ma ko bokkal ñi ma ko bokkal nag yéen way jur yi nga xamante ni yéen a joxe ndigal li ginnaaw yéen ay magam ak rakkam te da koo tàmbalee ci sëriñ Moodu moom sëñ Moustapha ku sëñ moor ja jur ku nekk kay nekk sab xalifa tudd nañ ko yaag say rakk wane ni leen bis bi ndigal li ci suñu kaw la dal waaye ñun ak yéen ñoo ko bokk kon sëriñ Cheikh bis bi yàlla na ko yàgg taxawee danga yàlla lu ñépp bokk tey ñëpp gis ci seen bopp nag ngir saw melo sag baax ak sag yaatu ndax tey jii kat bis bii ku sant ja ku mu doon walla nga yaakaar kër gii wala nga doonoon soppe sëñ moor ja soo ko woote woon ci sa kërit woote nga loo war a woote ndax sëñ moor ja ñëpp la bokk teral waaye nag biñ ko tegee ci sa loxo wootu nga ci ñépp te lépp rafet na kon yàlla yàlla may la fan wu gudd lool ñu ngi sant mboole seen ñi nga xam ni ñëpp woowoon nañ leen ci njàngum alxuraan mi te ñu teew fi ndax jataay bi seen jataay la. cantante geeg ngërëmante gi des na yeneen jataay ci kanam bu nu ca àggee lan ca war a wax dinañ ko ca wax waaye ñu ngi sant ñëpp di ñaan sunu borom ñu teewe ko ay déwéni déwén di ñaan sunu borom lii nu man ren bu déwénee yàlla na nu man lu ko sëriñ baa ngi ñaanal mbooloo mi ñëpp di wane ne am na ci mbégte bu baax a baax a baax. ñi liggéeyloo woon. ndax ñii mu liggéeyloo woon. seenub liggéey rafet na seenub liggéey rafet na. ñooñu ñi leen ca jàppale woon. ñooñu it ñi leen ca jàppale. seenub jàppale rafet na seenub jàppale rafet na. kon sëriñ bi sant na leen bu baax. di wax ni alxuraan. kenn mënu koo fay. kenn amulu payam. kenn amu ci benn tomb boo mën a fay. kenn amu ci benn tombit boo xam ne mën nga koo fay. kon ko defal. kon ki la ko defal. yow da koy wan sa mbégte. da nga wan rek sa mbégte. waaye xam na ne lii mu leen di jox. waaye xam na ne lii mu leen jox. ay barkeelu rek la ay barkeelu rek la. waaye kenn alxuraan kenn mënu koo waaye alxuraan xam na ni kenn mënu koo fay. kon nag lii mu leen di jox. kon lii mu leen di jox. maay tudd lim bi. nee na moom mooy tudd lim bi. ndax sëriñ bi sax bëggul di tudd ndax sëriñ bi bëggul ñuy tudd lim bi. waaye moo leen jox barkeelu bi. waaye moo leen jox barkeelu bi. toll ci téeméeri junni. toll ci téeméeri junni. ñaari bërigo suukar. ak ñaari bërigoy suukar. di leen ci ñaanal. di leen ci ñaanal. mu doon aw xos ak mu doon aw xos doon ak yokkute. lépp ñu jaamoo ko yàlla. lépp ñu jaamoo ko sunu borom. te sunu borom nangu jaamu ga. suukar si tamit. suukar si tamit. mu di leen ci ñaanal. mu ni ciy ñaanal. mu weexee. ni mu weexee. Euh, bijaaw bu weexee noonu. yàlla may nu fan wu àgg ci bijaaw bu weexee noonu. ni suukar neexee. ni suukar neexee it. sunu dund neexee ni. te mu ànd ngërëmul yàlla. noonu la kàddu yi toll ñu delluy siyaarewaat sëriñ bi di ñaan sunu borom yàggal ko fi te yàggal fi njaboot gi yëpp ñu yàgg koo jëfloo ñu yàgg koo jëf ci barkeb sañ Tuubaa lii ñoom itam jàng nañ kaamil yu takk lu tolloo ci téeméeri kaamil waa njaareem yi ñoom itam jàng nañ ko daaray mboloxteen nga xam ni mooy daaray sëriñ góor jële ñoom itam jàng nañ ñaar fukki kaamil ak juróom-ñett ak fanweeri kaamil yi nga xam ni jàng nañ ko fi ci koor gi ak fulku bi lépp yàlla na yàlla jotal sëñ Mor Dia ak njabootam ak mbokki jullit yëpp. jamaatul xidma lillaahi moom itam di njaboot sëñ góoru boppam gi jàngu nañ ñaar fukki kaamil kon nag yàlla na yàlla mottali lépp yàlla na yàlla nangu ko te jotale ci mboolem njaboot gi yëpp rek ci xorma yonant bi sallallahu alayhi wa mu ni imaam Sakkodou Samb Kër Bakar waaw kay imaam Sakkodou Samb Kër Bakar jàng na ñetti kaamil yabal tamit délégation bu mag moom itam eh, sëñ Ngañ Samb ak imaam sëñ Xaadim Jeng moomu ak ñi mu àndal yépp ñu jiite ko eh, mu ni daay daaraam ji nekk ba Ndiaye jàng na ñaar fukki kaamil ak benn bismillahi rahmaani rahim الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى المكين وعلى آله وصحابته سوي الرضوان والتمكين wa man tabi'ahum bi ihsaanin ila yawmi ddiin wa ala abdihi wa xadimi abdihi mawlana cheikh ahmad bamba xaadimu xayril mursalin wa ala xudwatina al azim maam cheikh ibrahima fall babil muridin ku am ngërëmul yàlla ku ku ku mu jur ba nga judd ci ngërëmul yàlla mënoo lu dul def lu yàlla gërëm loolu moo tax lii ñu mën koo def eh, ñu ngi leen di ñaanal di ñaanal nag tey gërëmati di ñaanal ci sëñ Moussa Dia sëñ Moor Ja Njar yàgg naa ko dégg lool tabarakallahu ci aw melokaanam ak jëfam ak baatinam ak wilayaam waaye nag barab bii sëñ Moussa Dia moo tax ma xam ko ba dugganteeg ñoom maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal fit wa mu amoon ak ngëm gëmu amoon ak man-man ma mu amoon te lépp mu delloo ko ci yàlla eh, ku ko xam rek loolu nga xam ci moom kon ba mu demee fi kanam yàlla day dem fi kanam yonent bi dem fi kanam Serigne tuubaa dem fi kanam seex Ibra Fall kenn ci ñoom du ko wax lu dul jërëjëf maasikan bil kitaabi maskadariirin bi yadil xaaidil basiiril muini nee na wax wa issi wa rifaati wa kunuusi wa bihi artaji xiyaadal muruni mbokk yi kon bu nu dajee fi di jàng alxuraan ci suba ba léegi luñ ci fas alxuraan attan na ko te danañ ñokket taxaw moom kon ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax kon maa ngi leen di gërëm di leen sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu amin yaa rabbi amin yaa rabbi amin yaa rabbi jërë ngeen jëf إليك قد تبت من خولي ومن عملي ومن جميع إلهي قد كنت أقنع يا ربنا بزي رب الله شعر din yaa man la woo kun fayakun ملكتني أنت الملك والملك ما لم يكن لملك أو لملك سقيتني إلى جنان بمياه غيبك يا من غاد لي خيرا يا سكرتني عند جميع جلك يا خير جار قد مكثت عندك سكرتني عند جميع جلك يا خير جار قد مكثت عندك صلي على محمد وكلم سبب سكرت إذا زنا بخدمة ما يزلال سخدمة في الله نهاية رابلو فكوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بوكي جلدي bokki taalibe yi noo ngi dellu di sant sunu borom bu baax fii lañu ko ñaanoon daaw ni yàlla nañu ko fekke déwén ak jàmm déwén a ngi nii nuy dellu di ñaanaat sunu boroom mu dimbali ñu ba ñu fekkewaat ko déwén ci barke Seydunaa Muhammad waaye bala may jox Sëñ Ablaay rek ngeen baal ma rek ma am tënk bu gàtt bu mu àndi ndax bis bii dafa mat a fàttaliku ci lu mu doon ki nu yaakaarul kudul moom fii ci àdduna ak alaaxira gujjum bu léegi muy sëñ Mor Ja moo tukki woon tukki bu rëy jóge fii dem Touba fekki yaakaaram ja sëriñam ba Cheikh Mouhamad Al Fadal dugg ak moom ci biirub néeg diisoog moom loo xam ni ba fi mu nekk nii bariwul ñu koy génne duñ ko wax sax ci ay rajo ak ndax waxtaanu biir néeg la woon waaye ca matam ga bi mu ñëwee ñi ko gënoon a jege la dajale ci néeg ñu leen sëñ Fallou ma woon waxtaan nag man lii ak lii ak lii li ma bëgg nag mooy mboolem dëkk bi nañ ma fekk fii ci pénc mi wax ak ñoom mag ñi ki ma ñi ma ko doon nettali am na ci ñuy dund ba tey ji ni ma li ma lay wax nii bi muy am dama koo fekke ñu ne sëñ Mor jeneen ne ku ku ne ci dëkk bi na ko fekk ci pénc mi wax nañ ne keroog pénc mi ñu bari daje nañ fi mbooloo mi wër ko lool mu sant leen gërëm leen ñaana leen yàlla daal di leen nag dama leen dama leen di damay bëgg tukki tukki boo xam ne day sori lool te day yàgg lool te kilifa nag bay waaj tukki war naa tàggatoo ko njabootam ma bëgg leen a digal bëgg leen a tere wax nañ ne keroog lu sëñ Mor Diop bëggoon bisub keroog la ko wax lu mu bañ ci ginnaawam bisub keroog la ko tere ba mu ko defee bàggal daf cee teg ni tukki bi de bëggoon naa ku ma gunge gunge bi nag tekkiwul ne damaa ragal ci yoon wi. mbaa dama ragal fa ma jëm dafa fekk ni kuy dem ci barab te ñeme fa lool te xam fa war ngaa ànd ak koo xam ne boo yeggee mu war laa mën a seedaloo sa ngan bu ëllëgee góor gi baa Ibrahima jenn ca njaay bopp bisub keroog moo wax ne sëñ moor ja pere naa ngir gungale ci gunge ci tukki bi nga bëgg a tukki mu ne ko pere nga mu ne ko pere naa mu ne ko boo demee waajal yemul ci loolu moom sëñ Mor ja dafa daal di dëkk bi ni leen beesal leen kër yi. sàkkatat leen wanag yi te ngeen bayal ma mbedd yi bayal ma ginaaw kër yi ñu defar ko ba mu set lépp set ba mu yeggal mu rey nag yu bari togg cere yu bari jox ko nit ñi ñu lekk ko door a war aw fasama nag di wër këram yi ci la dem daaru ja dajale waa kër sëñ Ousseynou Touré digal leen teral leen ni leen damay waaj tukki ci la jóge dem mbaaleen ca la dem daara mboolem buntu këram yi ca la dem ba Tëngéej kër Baay Omar fal ku ne mu taaj la la mu la war a digal mu digal la lam la war a tere mu tere la door a del siwaat ndekete wàccaay gi mu doon wàcc ne damay tukki sañ Mor day wàcc bu liggéey kera la wax fii ni yéen ñaan ak man na ngeen ma jël seede ndax bi ma sañcee fii dafa doy waar lool ma fekk fi ay kuy jinne fekk fi lu ne fii ci dëkk bi waaye ma ànd ak Serigne Touba ànd ak Cheikh Ibra muy histoire bu doy waar sañ sëñ sëñ sëñ sëñ góor waaye ci tënk ngir waxtu wi xat bi nga xamee ni def na tournée boobu ba yeggal daal di wax ni ci pénc mii mu waxoon leen leen waxtu wi ngeen déggee ni génn naa àdduna man sëñ Mor Dia ba ngeen toog ñaar fukki at ak juróom doonte sore na dat yi gaa yi indi waaye lu ci mën a nekk mën a ndax ginnaaw yonent bi Fatima yi ndeyam Aminata yi ndeyam Abdoulaye baayam li ci des yëpp dañ koo waroo waaye li gën a wér bokk na ci ni ñaar fukki at ak juróom la sëñ Mor waxoon fii nii su ma jógee génne àdduna ba ñaar fukki at ak juróom ci sama gannaaw ku ngeen fi dégg ni faatu na muy góor wala muy jigéen ñu ne ku ko juróon muy sëñ Mor Ja ku ma yaakaaroon xàccal garanté naa ruuyu njaboot yi feeg ñaar fukki at ak juróom ci gannaaw kenn du faatu kuy waaj tukki nag di wax ku la gunge te ragaloo fa garanté sa gannaaw ñaar fukki at ak juróom ni doom ju ma jur bu fi faatoo ku ma yaakaaroon xàccal lu ma leen dig ëllëg du dëgg mu toog ñaar fukki at ak juróom-ñaar doomam a commencé faat kon kii lu mu nu dig ëllëg ñu yaakaar ko kookoy sëñ Mor Dia aouzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasala bada ala allazi bihi lana huda bada sayiduna muhammadin wal ali wa sahbi zawi nawalil wali bokki jullit yi bokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ngi leen di nuyu te di leen ziyaara di leen bal aq te di leen balu àq di ñaan suñu boroom subhaanahu wa mu boole ñu jéggal di nuyu kilifa yi fi teew yépp moo xam góor la moo xam jigéen la di ko dooree ci suñu wayjur Serigne Salihou Dia ibnu sëriñ Momar di nuyu suñu wayjur sëriñ Moustapha ibnu sëriñ Momar di nuyu mboole suñuy mag yi fi teew nuyu boo xam ni nuyu bu matale la waaye di ko jaarale ci sëriñ Cheikh ibnu sëriñ Moussa moom mi nga xam ne bis bi tey moo ko méngoo di jël nuyoo mboole njaboot gi di ko teg ci loxoom mu wàcce ko ci njaboot gi yépp di santaat suñu borom bu baax ci fekke gi waaye ci tal gi itam waaye di santaat suñu borom bu baax ci liggéey bi nga xam ni sëriñ bi sóob nañu si ñu ànd si ak moom ndax kat fii nu toll yéenay suñuy sëriñ di suñuy kilifa ñu di seeni njaboot ngeen toog toogaay wayjur wa kon li ngeen bëgg rekk moo fi dox bu ngeen ñu jëlee sóob ñu si liggéey bi faaw ñu seereel ko mbooloo mi faaw ñu seereel ko àdduna li sant guñ leen sant ba tax na nag ci liggéey boobee ñu ànde ko ak sa jëwriñ jii di sëriñ góor moom mi nga xam ni samay kàddu si moom laa koy jooyale mu jaar ci moom yegg si si yow ndax moom day sant nañ ko bu baax ci jàmm ji ci teraanga gi ci sutura si ci cofeel gi ci dimbalee ji waaye ci yërmande gi ma seereel ko képp ku fi teew ni sëriñ Cheikh sa jëwriñ ji sant nañ ko lool sant nañ ko ba fu sant yam naka noon nag sëriñ bi yaa nu doon yónni ci àdduna mboole seex yi nga xam ni fii lañu jëlee yóbbu fa seeni kër ci sa ndigal ànd nañ ak mbokki taalibe yi dem fa ñoom xam naa lim bi du ko mat ndax sëriñ ab Ndoye jaar na ci te waxtu wi sori na naka noonu itam nga nekk koo xam ni danga nekk un citoyen modèle bokk ci réew mi waaye di contribuer ci développement réew mi ci di ko stabiliser ba loolu waral na nga yónni ñu si autorités yi nga xam ni ñoo méngoo wàllu administration su préfet léegi la fi jóge jël kàddu yu am solo fa sa kanam te loolu lépp xam nu réew mi di doxee xam nu état di doxee looloo ko waral naka noonu commandement territorial yi commandant ak mboolee délégation brigade bu kayaar ñoom ñëpp ñi ngi fi teew ci suba ba léegi ànde ak liggéey kon sëriñ bi ci yàlla nga woote waaye ñëpp wuy nañ la ci yàlla tant baa ngi ñëpp mën nañ koo seere kilifa yi ñoo fi teew ndax kat bis bi jour ouvrable la nit ñi dañoo xëyee liggéey suba incha allah ci liggéey lañ jëm malgré contraintes yooyu yëpp ñu ngi fi teew ànd ak yéen ci bis bi ngir xam ni kat lu baax mësta yomb kon ñi ngi sant mboole ko fi teew naka noonu nag kilifa yi nga xam ni ñoo nekk ci gox bi di ay responsable politique am fi ay ndombay tànk ñoom ñëpp seeni ndaw mi ngi fi waaye lu weesu loolu itam sur le plan national ñoom ñëpp am nañu fi teew kon bu ngeen ñu ko mayee rek ñu lim ko très rapidement ngir ñu xam ni sëriñ bi àdduna ñëpp wuy si nañ la bu ngeen xoolee fii nga xam ni fi la ñu féetee muy Jandeer di commune Jandeer le maire monsieur Alassane Ndoye yabal na fi délégation yebal fi monsieur Mame Gor Diagne di taalube ci kër gi ànd ak mboole waa commune bi ci seen taxawaay boobee ba tey ñu ànd ko ak ñun ngir xam li sëriñ Tub Mor tekk ci biir Jandeer waaye li sëriñ Moussa jëflanteek waa réew mi kon monsieur Mame Gor moom mi fi teewal monsieur le maire ñu ngi koy nuyu te di ko bàyyee nuyoo monsieur le maire naka noonu itam sëriñ Saliou mbay di président mouvement bi yëngu ci développement Jandeer teew na fi te di ab taalibe ci kër gi ndax saa yu ñu nuyoo mën nañu ñun lu ñu am sa way juróom moo ñu ko defal kon loolu yi ñoom ñëpp bàyyi ko nañ fi teew monsieur Akane Ndoye tey nag mu teewee fi ci kàddu sa wëllëre sa taalibe sa xarit euh, monsieur Mbaye Diop di entrepreneur jiite établissement bi ñu tuddee établissement la Diender kon Akane ñëw na fi ànd ak une forte délégation fekkee cant gi waaye fekke liggéey bi naka noonu itam monsieur Mbaye Jonn euh, yebal na fi délégation bu am solo euh, mu jiite ko Mamour monsieur Mamour Sène ak ñi mu àndal ñëpp ñi ngi fi teew di ay wólëre di ay mbokki taalibe ci kër gi kon ñooñu bokk nañ ñi fi teew waaye nag ku ñuy wax docteur Abdourahmane Diouf di président parti awale ànd wattu askan bi liggéeyal ëllëg ñu bàkkee ko les jàmbaar teew na fi ànd ak une forte délégation ji bu ànd ak monsieur Al Amin Niane ak monsieur Cissé di ñoo xam ne ñoo ànd ci liggéey bi ñoo ñëpp teew nañ fi kon sëriñ bi ñoo ñooñu nga xam ni teew nañ fi di wàllu administration wàllu àdduna sa jëflante ak ñoom waaye xam ni kat réew mi réew la moo xam ni mënta dem te kilifa diine yi dugg lañ suñ seen loxo mënta dem te njaboot yi dugg lañ seen loxo loo tax ñoom ñëpp ñu ñëw fekk si la ak sa jëflante bu rafet ak ñoom ànd ak yow ci bis bi kon sëriñ Cheikh ñooñu ñëpp wuy si nañ si woote bi waaye nag sa njabootu bopp Serigne Alioune Dia mi ngi ne toog di sëñ Sang Dieng mu ngi fi teew soxna Ami soxna Ndey Faatu ñoom ñëpp njaboot gi ñëpp wuy si nañ la tey jii boo nekkee sunu xalifa man mii may caat ngeen tàggat ñu ba ñu mën fee taxaw kon ñëpp àndoon nañu ak ak liggéey bi di sant bu baax lim bi mënoon naa gën a bari wante kàddu yi amul solo li am solo mooy yéene yi képp ku fi teew rek sëriñ bi yëg na la sëriñ bi gis na la naka noonu nag ñu am kenn koo xam ni faw ñu sant ko muy soxna maam jaara seen di njaboot di soxna ci sëriñ bi teew na fi teewin woo xam ni soxna maam jaara seen soxna maam jaara seen teew na fi teewin wu am solo di doom si suñu bàjjan bëgg fàllu di njaboot ci sëriñ bi ànd ak njaboot bi yépp jàpp ci bis bi ni ab taalu bi di jàppee bisub sëriñam kon ñu ngi koy seereel mbooloo mi te di ko sant te di ko dalal ci liggéey bi te xam ne sëriñ Cheikh buntu la boo xam ni ñëpp mën nañ see jaar liggéeyal sëriñ tubaa kon sëriñ bi ñi ngi sant bu baax du ñu guddal kàddu yi waaye lii daal ñooy ñi nga xam ne ñoo fi teew ñu ngi leen dalal jàmm di ñaan képp ku fi teew sëriñ Touba faj sa aajo asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu nag danoo nekk ndaw si kër gi nekk taalu bi yàlla am lu ndogal dogal si ñun waaye li ñuy nekk nekk nekk nekk taalu bi nag li wértu wértuwoon mooy ñun kër gi duñ ko jënde kenn képp ku ko jàpp daaw de dañ fee ñëwoon ci waxtu yii teewal docteur Abdourahmane mu amoon njataay bu mel nii bu ko buñ ko woo Kaolack waaye ba ma ñëwee fii laa ko woowee téléphone ci sa kanam ni ko fii de su ma sañoon nga bàyyi foofu ñëw fii ndax li ma fi gis li ma fi dégg su ma sañoon doo ko wuute kenn du la ko nettali donc docteur Abdourahmane su jëlee délégation nationale de doomu daara man mii mu def ma ko loolu loolu la xam loolu la jàng loolu la nàmp addu ñu ni fii de ku sa soxla nar ta faju doo fi ñëw moo tax lu ma mën a def tey dinaa fexe ba nga ñëw fii parce que damaa bëgg nga doon président de la république 2024 yàlla na ko yàlla def ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen sant di leen ñaan yàlla ngir ñaanalal ñu ko bu baax a baax parce que am nañ ci moom yaakaar Sénégal am na ci moom yaakaar wasalaamu ala mani tabaxul huda Serigne Cheikh ñu ngi lay jox nuyoo say bokk yépp te mooy ñi nga bokkal sañ Mor ja moo xam say mag lañ moo xam say rakk lañ nin la ko waxee woon ci bëccëg duñ ko baamoo jox nañ la lu ñëpp bokk waaye nga téye nga ko téyin wu sedd xol ñi nga ko bokkal ñëpp kon yàlla na yàgg yàlla na yàlla defal la tawféex yi ndigal li yàgg jóge ci say wayjur di ñëw ci yow te ndigal lu ñëw yàlla na nga ko jekku ba jëfe ko na ko bëgg a jëfe te ñi gëm sëñ Mor Dia ci jamono bii ngëm gin ko ngëm ràññiku na te ñi ci ëpp teguñu ko bët ñi gëm sëñ moor Dia ci jamono bii ña ko gëmoon ca jamono booba ñi ko gëm ci jamono bii ko ëpp te ña ko jëm kay gan jamono booba tegoon nañ ko séen bët muy wax ñuy dégg muy jëf ñuy gis ñi ko gëm tey jii nag ñoo ëpp ñooña te gisuñu sëñ Mor Dia mu wax gisuñu ko mu dox kon xewiwul lu ko tee xewi mooy dafa tegoon mbiram ci li yàlla digle loolee mu tegoon nag mbiram mooy tax suba gu xëyee mbiram di gën a neex wala taqulu liman yaxtulu am sabilillah amwaatun bal axyaun walakin laa tasxuruun boo demee ci sóoratu bàqara aaya 154 lii ma wax fa la ko yàlla wax sunu boroom nee na ñi ñu rey ci yoonu yàlla yéen a jàpp ni ñu dee lañu waaye ñuy dund lañu ni ñuy dunde ngeen xamut ku ñuy rey ci yoonu yàlla nag ak ku sa dund gépp nga jeexal ko ci yoonu yàlla yéen a yem atte asalaamaaleykum yéen waa Njar asalaamaaleykum gan yi asalaamaaleykum yéen waa Jandeer mbay nag bon dafa ma fi yebal parce que il est euh, nekkul si dëkk bi dafa tukki ma ñëw war ko représenté waxal fii parce que dañu ko boole si sponsor yi journée tey bi di cant gi muy wóolare sëñ Ngor Dia may wóolare sëñ Ngor Dia muy yéen bu sëñ ngóor am si mbay mënuñu ko quantifier mënuñu ko mesurer xam naa si dara parce que mbay sama xarit la daf ma jigañ ba man ma wax si moom lu baax établissement bi nag si lim si def sëñ bi bëgg ñu am visibilité dama ni woon jaru ko parce que lu ñu mën a def si journée tey bii ay rafetal la rek parce que journée sëñ moor ja bu si mbay tegee loxam day dem bu si tegul loxam day dem ma bëgg ngeen dogu fi ba bu àllëgee ba lañ fi ñëwaat établissement Lion de Diender daal di jàlle romb jandeer dugg Dakar ba dugg biir Bawal asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi ziare ñëpp di balu àq ñëpp. mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare ci turu sëriñ Fallou Sow ñu gën koo xam ci Papa Sow ah kàddu yi nag du gudd ñoo ngi nuyu. sëñ Moustapha ja di nuyu sëñ Saliou ja di jël suñu nuyoo ñun waa njaareem gépp teg ko ci seeni loxo ngeen jottali ko sang bi ci biir a ah, di ñaan yàlla yàlla na yàlla dëlli ko wér yàlla na yàlla guddalu fanam di ñaan ki nga xam ne bii moom la ñuy can cant gi tey muy sëriñ Mor Dia yàlla na yàlla dolli leeram fa mu tëdd ak njabootam gépp a ah, sant daal la ñuy def mbir mi xat na te it yàkkamti nañu suñu sang bii suñ ginnaaw waxtaanal ñu kon daal cib tënk daal ah Papa Sow nee na mi ngi leen nuyu mi ngi leen di siyaare maa ngi ma àndal ñëpp jërë ngeen jëf. asalaamualeykum wa rahmatullah ñu ngi leen di ziar di leen nuyu si nuyu yu gën a tedd yi fatu af ko law ah bëggoon naa ci wax lu bari nag waaye. temps bi dañoo xoj fa tuwaaf ko laaw saar saar mi nga xam ni moo bokk ci famille njóobeen Louga di ànd ak ñoom Ceerno Muntaga Taal ñu koy wax Pape Taal seen coloré mu daal ñëw fi souvent leen fekk si ñoom laa fi la ah sunu kilifa gi nag yaramam dafa sutante fa tuwaaf ko laaw muy duudu ay sa jóob mooy sunu xalif général mais yaram neexul mun ma léegi demal ma fa masaar woo ma démb ni ma loo mën ti jàpp bàyyi ko ànd ak xale yi ñoom Sidi Sarr Papa Ndiame Sarr ak Makhtar Sarr ñu ngi ne sa kaw ànd ak ñoom fekk Cheikh Cheikh ja alhamdulilah rabbil alamin Cheikh Dia nett ni ma léegi nii ba ñu dee reer mun ma sama papa dafa amoon yéene tund Masaar Sarr doom ma dégg loolu mu ñuy daw di daw di daw ba am doom bu góor ni tudde naa ko Matar Matar euh, Sarr yaa baax yaa am kóllëre ndax sa papa la woon moo ko yéene woon nga feddali kóllëre ga bu loolu wéyee sunu mbokk mi di sëñ Saliou Dia vingt ans ñaar fukki at sa papa Euh, Moussa ja jël Massar boole kook Serigne Saliou ja mii ñu amoon problème sunu gàmm gàmm bi nga xam ne ñoo teewaan ñoo koy bokk mu bàyyi lépp vingt ans ci ñun la koy passé yal yàlla fay yal na yàlla fay Dia te bu mu ñëwee tamit dama kontaan gis famille bu mu bokk tubaab ko laaw muy famille bu rëy famille bu am xam-xam ku bugg diine ànd ak sëñ Touba. ñoo ngi leen di nuyu di ci diital xalifa général des mourides te di ko ñaanal muy sëñ Mountakha yaakaar la joo xam ni lu mu fi gën a yàgg lépp yokk lépp am tawféex te sagu yoon wi la sagu diine ji la ñun ñëpp nañ maase di ko ñaanal samborom yàggal ko ànd ak di nuyu it xalifa bay Baye Fall sëñ Amdi moo Moodu Mbenda Fall lu yàlla boole lu nekk faw mu dem te yàlla du ko boole jamono sëriñ sëriñ Mountakha dañ ko ñaanal moom bu baax a baax di wàcc ba ci sa ki nga xam ne tey jii moom laa fi teewal mi sëriñ Saliou ture ñoo ngi koy ñaanal bu baax ndax jëm la woo joo xam ni bari na nit toog ci yoon murit lam toogee sëñ Saliou Touré sëñ ko wax mu ñu wax ko ko su ma fi doon dugg du fi xaj waaye tënk rek doy na te yàlla doo nga tax may wax di nuyu ki nga xam ne tey jii moo fi sëñ moor ja muy sëñ Modou Aminta di ko ñaanal it bir na képp koo xam ni def nga def nga ca sa yàqin def nga ci jëf-jëfu mat sëkk ak yéen ak xol bàyyiwuma kenn de di nga gis ton ak tono ak ku doon ñi ko daa dajale laa wax de nañ wàcc ne ma tàmbali. li ñu jëkk suba li ñu jëkk ci suba. li ñu jëkke ci suba. ndax li ñu jëkke ci suba. moo di doon fi jàng alxuraan. di ñaanal Serigne Mor Dia. di ñaanal Serigne Mor Dia. akuk njabootam. kon alxuraan ji nu fi wàcce. yal na yàlla nangu ko dollee ko seeni leer. nee na tey nag. daanaka. tuuti la ci nar a wax. sant rek nag. te ak cant rekk ndax lii. ndax lii. Serigne Moussa. bi mu ko koy jox. sëriñ abdu moo ko yoroon moo ko yoroon. bi ko sëñ Abdou Bousso Dieng yoree mu jox ko ko mu takk ndiggam ci kanamu ñépp ngir kan ngir kan moom sëñ Moussa moo ko yar taawlu tudde yaayam te am na yeneeni doomi baay ci ndigalul sëriñ Mor Dia waaye lépp nag rafet na kon yal na yàlla. na yàlla. ak yonent bi ak Serigne Mor Dia. dolli leeri ku njabootam gépp moom kat ku kontaan kontaanul de ku fi newoon Serigne Moussa yor baas yi mu yor baas yi sëñ Ablaye nekk fi sëñ Xalla nekk fi sëñ Ablaye Jamu Ndaw nekk fi sëñ Maam Mor nekk fi sëñ Abdoulaye soo àndeek ay nit te lam waxoon muy fukki nit ak nangam fukki ya dem kon nag sooy nit sam xel war naa am ci ca ña dem sam xel daa war a dem ci sa magam yooyee mu fi nekkaloon tañu ñu dem mu di leen di ñaanal yàlla li mu ci dolliwaat dolliwaat nañu góorgóorlu sëriñ Modou Ami Sey mooy sëriñ moor Dia moom mii ndongam laa taalibeem laa ñi fi des ñëpp sant ja bàyyi laay sëriñ saaliw ñëpp ay taalibeem lañu ñi fi daje ñëpp mën nañoo jàpp ni sunuy mbokki bopp ñoo fi daje ne ñu teg ormay nuyoo bi nag sunu xalifa bu tedd bi ci sunu xalifa bu tedd bii di sunu kilifa di sunu kilifa sëriñ Mouhamadou Dia teg ci nag di ñaan sunu boroom mu dolli ko fee may mu yàgg fi lool mu dolli koo may mu yàgg fi lool nekk mboole seen ci ay njabootam. ña fa nekk mboole seen ci ak njabootam. yaatal ko. yaatal ko. ba mu eh, ëmb waa Barzak mboole seen. ba mu ëmb waa Barzak mboole seen. ca ña fa tëdd ñëpp. ca ña fa tëdd ñëpp. bi machiatillahi. bi machiatillahi. azza wa jalla. azza wa jalla. ñi fi desandi nag ñi fi desandi nag. yal na borom bi doole may ñëpp gudd fan. yal na borom bi doole may ñëpp gudd fan. taxawaay na taxawaay yi gën a yàgg ci kaw suuf. ànd ak wér. ànd ak bu sax. ànd sutura bu sax. ànd sunu borom jéggal nu sunuy safaan. ànd sunu borom jéggal nu sunuy safaan. sunuy njuumte. sunuy njuumte. jëfi càggante. sunuy jëfi càggante. wala sax sunuy def defi càggante. wala sax sunuy def defi càggante. te sunu borom. te sunu borom. daf nu xamal ne. daf noo xamal ne. ku mu jéggal. ku mu jéggal. yërëm la. yërëm la. dootu la topp dara. dootu la topp dara. day boole sax ya jiitu woon. day boole sax ya jiitu woon. ci ay safaan. ci ay safaan. far ko far ko. wala mu soppi ko mu di aw yiw. wala mu soppi ko mu di aw yiw. booleeg yi nga mujj a fàggu. booleeg yi nga mujj a fàggu. ngir nga bari le. <coughs> ngir nga bari le. alquran ko dëggal. alquran ko dëggal. illa man taaba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu llahu sayyiatihim hasanatin wa kana llahu gafuran rahima wa man taaba. wa amila saalihan fa innahu yatuubu ilallaahi mataaba sunu borom ay xamle ne. nee sunu borom ay xamle ne. bu nu jéggalee. bu nu jéggalee. yërëm nu yërëm nu. dootuñu topp dara topp dara. yal na ko defal ñu jiitu ñëpp. na ko defal ñu jiitu na ñëpp ne amin na ñëpp ne amin amin. te ñun ñi fi desandi. yal na nu defal lu ni mel. yal na nu defal lu ni mel. bi bi bi xurmati. saaxibil. haadihi alleylatil almubarakati xaalida sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wax naa dëgg wax nga dëgg ndax mooy cëslaay bi ndax sayidina muhammad mooy cëslaay bi wax naa dëgg waaw wax nga dëgg ndax ñi ñu yaakaar ñëpp ndax ñi ñu yaakaar ñëpp dañoo way dañoo way sang bi sang bi ci dara ma wax la ci dara maa ngi ciy jàpp ñaari seede. maa ngi ciy jàpp ñaari seede. benn bi benn bi. sama ndono la. sama ndono la. kër Sëñ Touba. ca kër Sëñ Touba. Sëñ Mor. Sëñ Mor. Cheikh Ibra. Cheikh Sëñ Touba. Sëñ kooku sama ndono la. sama ndono la. lu ñu fay séddale. lu sama cëre nga fa. sama cëre nga fa. Tiwaawan. Tiwaawan. sama tarbiya la. sama tarbiya la. foo def ñaar fukki at ak juróom-ñaar. def ñaar fukki at ak juróom-ñaar. sa tarbiya. sa tarbiya fa nga bokk. fa nga bokk. kon dinaa takke ñaar yooyu. kon dinaa takke ñaar yooyu. bu jëkk bu jëkk bi. Touba daf ne. Serigne Touba daf ne. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. man de sama dund. man de sama dund. séddale naa ko ñaari xaaj séddale naa ko ñaari xaaj. benn xaaj bi benn xaaj bi. ci at mi ci at mi. ci at mi ci at mi. ma séddale ko ñaari xaaj. ma séddale ko ñaari xaaj. juróom benni weer. juróom benni weer. ma di ko ma di may julli ci yonent bi. may julli ci Seydina Muhammad. juróom benni weer. ma di may tagg yonent bi. at mi jeex at diggante ba nag ma diigal ca. ma diigal ca. samay faraid. samay faraid. ci li ma sama borom teg. ci li ma sama borom teg. ma di ca nekk. ma di ca ci li mu santaane. mu li mu tere. li tere. ma ko tee. seet te di ko sawe te ko sawe boole kook boole kook alxuraan jàng jànguma alxuraan ak jëriñ bindee fi ak jëriñ bindee fi ci naka ci naka xawlan xawlan wa fi'lan wa aqdan wa tarkan wa xubban wa buxdan yahud ba yahud ba nee du sax labbe yahut la. en Muhammad di gàddaay. ba ñëw Madina. ca Quba. fekk ñoom rompe nañu. fekk ñoom rompe nañu. gannaaw ba ñu teeroo. gannaaw ba ñu teeroo. ba jàpp ne ngoone na. ba jàpp ne ngoone na. am labbe am labbe ñu ne ñu ne déedéet ab yahud ab yahud la tollu ca taaxam tollu ca taaxam seen leer seen leer buy larax leraqi di ñëw di ñëw sunu borom ay xamle ne ne sunu borom ay xamle ne bu nu jéggalee bu nu jéggalee yërëm nu yërëm nu dootuñu topp dara yal na ko defal ñu jiitu ñëpp na ko defal jiitu ñëpp na ñëpp ne amin na ñëpp ne amin amin te ñun ñi fi desandi. yal na nu defal lu ni mel. yal na nu defal lu ni mel. bi xurmati. bi xurmati. saaxibi. saaxibil. haadihi. allaylatil. almubaarakati. xaalida. xaalida. sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wax naa dëgg wax nga dëgg. mooy cëslaay bi. ndax sayidina muhammad mooy cëslaay bi. wax naa dëgg wax nga dëgg. dañoo way sang bi ma wax la ci dara maa ngi ciy jàpp ñaari seede. nee maa ngi ciy jàpp ñaari seede. benn bi sama ndono la. sama ndono la. kër Sëñ Touba. ca kër Sëñ Touba. Sëñ Mor. Sëñ Mor. Cheikh Ibra. Cheikh Ibra. Sëñ Touba. kooku sama ndono la. sama ndono la. lu ñu fay séddale. lu sama cëre nga fa. sama cëre nga fa. Tiwaawan. Tiwaawan. sama tarbiya la. sama tarbiya la. foo def ñaar fukki at ak juróom-ñaar. def ñaar fukki at ak juróom sa tarbiya. sa tarbiya fa nga bokk. fa nga bokk. kon dinaa takke ñaar yooyu. kon dinaa takke ñaar yooyu. bu jëkk bi bu jëkk bi. Touba daf ne. Serigne Touba daf ne. sallallahu alayhi wa sallam. sallallahu alayhi wa sallam. man de sama dund. man de sama dund. séddale naa ko ñaari xaaj séddale naa ko ñaari xaaj. benn xaaj bi. benn xaaj bi. ci at mi ci at mi. ci at mi ci at mi. ma séddale ko ñaari xaaj. ma séddale ko ñaari xaaj. juróom benni weer. juróom benni weer. ma di ko tagg ma di ko salaam may julli ci yonent bi. may julli ci Seyduna Muhammad. juróom benni weer. juróom benni weer. ma di ko tagg. may tagg yonent bi. at mi jeex ca diggante ba nag diggante ba nag ma diigal ca ma diigal ca samay faraid samay faraid ci li ma sama borom teg ci li ma sama borom teg ma di ca nekk ma di ca nekk ci li mu santaane li mu santaane li mu tere li mu tere ma di ko teet ma di ko teet te di ko sawe te ko sawe boole kook boole kook jànguma alxuraan jàng jànguma alxuraan jànguma alxuraan ak jëriñ bindeef yi ak jëriñ bindeef yi ci naka ci naka xawlan xawlan wa fi'lan wa axdan wa axdan wa tarkan wa tarkan wa xubban wa xubban wa yahut ba yahut ba. du sax labbe yahut la. nee du sax labbe yahut la. en 622. en 622. rasul di gàddaay. Seydina Mohamed di gàddaay. ba ñëw Madina. ba ñëw Madina. ca Quba ca Quba. fekk ñoom rompe nañu. fekk ñoom rompe nañu. gannaaw ba ñu teeroo. gannaaw ba ñu teeroo. ba jàpp ne ngoone na. ba jàpp ne ngoone na. am labbe. am labbe. ñu ñu ne déedéet. ab yahuud la. ab tollu ca taaxam. tollu ca taaxam. seen leer. seen leer. buy larax leraqi di ñëw mu mel ni. mu mel na. doxuñu normal. doxuñu normal. dañuy ràmb. dañuy ràmb. nuroo kundu. di nuroo kundu. buy yolos yolosi. buy yolos yolosi. wala baa. wala baa. buy ràmm buy ràmm. leer gaa ngay ñëw rek. nee leer gaa ngay ñëw rek. yëgu la yëg ba yëgu la yëg ba. mu ne yéen waa Yasrib. mu ne yéen waa Yasriba. xat laaxa. xat laaxa. feeñ na. feeñ na. jaddukumu jaddukumu. seen sang bi seen sang bi ngeen doon xaar. ñëw na ñëw na Sayyiduna Muhammadin. ndax dafa am lu ma mos a woote Ndakaaru. ndax dafa am lu ma mos a woote Ndakaaru. boobaag léegi at yu bari la. boobaag léegi at yu bari la. dama yore ONG. damaa yore ONG. xëy woote. xëy woote. njar kenn desul. njar kenn desul. kenn desul. kenn desul. ku sëñ Mor ja. ku sëñ Mor ja. ak lu ca bokk ak lu ca ba ciy sët ba ciy sët. sëtaat. ñëw ñëpp ñëw. adduna di dox. adduna di dox. ba tey fi ma toog. ba tey fi ma toog. ma yëg ne. ma yëg ne. war naa koo beesal mois de novembre. war naa koo beesal mois de novembre. incha allah incha allah. du ma ko defee Sorano. du sama pàkk ba. sama pàkk ba. ca Ndakaaru. ca ko bëgg a laa ko bëgg a defee ren. ma ne kon nag. ma ne kon nag. danaa ko fi waxaale. danaa ko ka ma koy cërale. ka ma koy cërale. sëñ musa sëñ moom la. ba tax na kon. ña ba tax na kon. sama njaboot gi. sama njaboot gi. ñu ma lu ñu ma defal jërëjëf yàlla ko yàgg moom lu ñu ma defal lu moom waaye bu ma fi jógee waaye wóor na sama taaw a ngi wóor na sëñ Modou sama taaw ay millions laay dépensé ay millions laay dépensé ci liggéey bu may liggéey ñeenti ci liggéey bu may liggéey ñeenti xikmatu luqmaan xikmatu luqmaan waxtaan naa ci conférence Sorano wax naa ci conférence Sorano semaine bii ñu génn semaine bii ñu génn ko fa ñu naan ñu naan dinañ ci jàpp dinañ ci jàpp waaye man bala maa xaar kenn waaye bala maa xaar kenn li sama rakk jëlee wax li sama rakk jëlee wax sëñ Moustapha Moustapha ci man la ko jëlee moo tax ñu numéro feem moo tax ñu numéro feem gisoo buy wax di waddi wad ma ne su may wax di manière waaw ah, suñu caat la suñu caat la sëñ noonu oui <laughs> na nga fay samay bor. jaabir na nga fay samay bor. ndax mooy tax ma tàlli. ndax mooy tax ma tàlli ci bàmmeel. oh. mu ne ko bi ko ñaareel. mu ne ko bi ko ñaareel. na nga jokk mbokk gi. nanga nga jokk bokk gi. lien de parenté. lien de parenté. na nga jokk bokk gi. na nga bokk bu mbokk gi yàqu. bu mbokk gi yàqu. bu mbokk gi dagg. bu mbokk gi dagg. mbokk gi ba mbokk gi bañante. bu mbokk gi bañante. Ah, ah, ah. iñaanante bu mbokk gi iñaanante nañu nangoo dimbalante tey xettalante tey xettalante yéenante jàmm te bennoo ma ne na ni dañ ko ko daan wayal dañ ko daan wayal sëñ Mor Dia air boobu air boobu mooy bi kii doon way fël sëñ Ablaye Seck nu bu daw la sëñ moo tax la ilaha illallah la billahi ولكن إذا دعيتم فادخلوا وإذا تئمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان لا إله إلا الله لا لا لا لا لا قلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد لا لا لا إله إلا الله لا لا la Sëriñ Njaay maam Seex Ibra géej géej ba ca géej koo koo fi woo bal la yuyu Seex Moor yaa jàpp góor sol ko ak leer xol ba bees muy ba asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi fi teew yépp noo ngi leen di nuyu ci kàddu sëriñ Mouhamadou Dia Aminata xalifa sëriñ Mor ja sëriñ bi nee na mu ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam di jiital ci nuyoo bi sangam bu tedd ba seex muhammadul muntaxa mi nga xam ni mooy sëriñ tuubaa ci jamono di ñaan yàlla na ko fi yàlla yàggal te dolli ko wér te gën koo dimbali ba naal yi mu naal ngir liggéeyal ko sëriñ tuubaa maamam yàlla yeggal ko ni mu ko bëggee noonu it lay siyaaree sëriñ am di Modou Mbenda mi nga xam ni mooy maam Cheikh Ibrahima Fall di ñaan itam moom it naal yi mu naal ngir liggéeyal ko maamam maam Cheikh Ibrahima Fall yàlla na ko yàlla may doole ak kàttan ba mu àggale ko ni mu ko bëgge lii sëñ ab Ndoye doon nettali léegi ni mu ko waxee ni la demee ndax bi nga xamee ni soxna Faat ja boroom këram nelaw na te ñu indi ko yoof ba muy ñëw dafa indaale sëriñ Mor Dia ndax booba dafa fekk ki nga xam ni mooy wuy moo doon kilifa ak sëriñ Mor ja da koo fekkut foofa ci jamono boobu muy ndijaayam waaye nag soxna Fat Dia indaale ko yoof bi mu ko indaalee nag bu nekkee ci xale yi di foo ba dig ci maam limaamu siin naa limaamu bu xoolee tuut tànk bi muy sëñ moor Dia bu xoolee sëñ moor ja teen asamaan bëtti sëriñ morja yi li muy doon doon tut tànk ak bëti sidina limaamu yi dañuy daje ma mahfuus booba ca la sëriñ mor ca la sidina limaam limaam waxee ne waaw xale bi ki ko fi indi ñu ni xale bi de njaga saara ko fi indi mu ne nañ ma ko wol ñu woo ko mu ñëw mu ni ko xale bii làq leen ko ndax cër bii ma yor day bu ne toll dina ko woote te dinañ ko wuyu te bu dikkee ku ko wuyu yàlla goreel la eh, ba eh, ci sawara kon nag nañ ko làq loola moo di jógeeg sëriñ moor ja ca Yoof ñu indi ko fii ci Kër Matar ba nit ñi defee ni sax Kër Matar la sëñ moor ja ganee jamono waaye déedéet ba mu jógee Yoof la ñëw Kër taar kon loolu sëñ ab Ndoye doon nettali léegi noonu yi la demee kon yéen waa Yoof njar gi mooy seen kër sëriñ bi wax ni nag mu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen ñaanal bi ci topp itam sëriñ bi wax ni mu ngi soññee ci li nga xam ni moom la la mu lanu bokk te muy taalibe gi ndaxte sëriñ Mor Dia de lépp lu mu am ak taalibe ko may bëgg sëriñ bi nanga koo liggéeyal nangoo jëf tey loolu firnde ji mooy sëriñ Moussa mii nga xam ni moom la ñuy defal bis bii tey tey jii gis ngeen kër sëñ Mor Dia li muy yaatu yaatu sëriñ Moussa moo ci am ak cant cant googu nag daa am lu ko waral sëñ Mor Dia bi mu fiy door a bàyyi koo bàyyi fi sëñ Modou. booba jandeer dafa métti lool réew mi dafa naqari lool réew mi dafa jafe lool waaye sëriñ Modou ja doonoon borom wilaaya di borom baatin di borom mayug yàlla téye baatin bi ba dara yàquwul waaye sëñ Moussa nangul ko nag nangul goo xam ni àgg na ci ba mu nekkee moom ca mbëtt moo sëñ Ablaye daanañ ci eh, ron màngo ga ci lañ daan fanaan nangu googu mu ko daan nangul nag ak lu mu am jox ko sëñ Modou ni ko def naa la ngay jiili mbéyum réew mi. loolu mooy xéewal gi toppat sëñ Moussa mu ne ko nag téyal baatin bi may ma téyal la saayir bi looloo wala réew yii dëkk yii ñu wër dëkk bu ci nekk sëñ Moussa bënn na fa teen wala mu tabax fa jàkka wala mu defar fa hôpital wara mu dimbali fa ñu ñu sànku loole booba sëñ Modou ngi fii ci njar di téye baatin bi waaye yebal sëñ Moussa mu di ko téyal saayir ci ci dëkk yi ko wër kon nag loole cant googee moo waral cant gi kii mooy sëriñ Mor Ja ki mën a garante loolu nag bu la nee fa nu jëm ëllëg mën naa la faa dimbali war ngaa góorgóorlu te li mu di lim nuy dimbalee nag mooy lii sëñ bi digle wéye ndigal bàyyi tere bëgg lu baax tey bañ lu bon te dimbalante te yàlla tax buñ ci saxee lu nu bëgg dinañ ko am wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñu ñaan sëriñ Mouhamadul Muntaxa mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye ñaanal eh, sëriñ Amdi Fall moom sëriñ Moodu Mbenda mu yàgg fi lool te ñaanal suñu waajur waaye moo di Aminata mu yàgg fi lool te ànd ak wér waaye ñaanal Serigne Cheikh ibnu Serigne Moussa mu yàgg fi lool te ànd ak wér mm, fàttali rek ndégalu sëriñ bi mooy ñu bokk maas ci tuub tey sàkk sarax tey baalu tey xaq lépp lu waay yéene boppam na ko yéene moroomam sax ci dàkk te fu waay jëm mu yëgle ko fa ñu ñaanaat ñaanu mber ma suñu waajur maam yi jaane Serigne Moussa fa mu nekk yàlla yokk ko leer dooli ko ma yërmande taafu ci barkeem boole ko ku mu fa fekk ak ku ko fa fekk nu ak nii mënu bàyyi mu ak bi ñu sax ci bañ koy fekk te yàgg lool ci gannaaw ñu ngi baal ñëpp xàq di baalu ñëpp xàq di ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal di nuyu jotaay bi yëpp góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi kuy gis suñu jëmm ak kuy dégg suñu kàddu ci biir réew mi ak bitim réew ci kàddu gu ju tënk ci baatu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñuy santaat suñu borom bu baax ci dajawaat gi ci fii ci nii ci lii tey nag kàddu yi sëriñ bi li mu ñu waxoon bëri na lool waaye ni ma ko fi waxoon ci benn jotaay match am na fu muy toll joueurs yu bëri yu waroon jouer wala plan de jeu bi dañ koy changé comme ni ko sama waajur Baye Serigne Saliou def yàlla na fi yàgg te ànd ak wér kon rek noonu lañuy sofe jël nuyoo yi bàyyi ko ci sëriñ Cheikh jëm ci suñu waajur Baye mujj Aminat di ñaan mu yàgg fi lool te